présidentielle yu atum 2024 campagne daanaka door na wala pré campagne en tout cas ku ci nekk yaa ngi def propagande ci sa côté ak nag daal di teg ay stratégie ngir daal di nag convaincre Sénégalais yi ñu daal di ne nag voter sa instance sa parti wala ñu voter la bu dee candidat nga Idrissa Seck ni ñu nag mi ngi ci recherche de fonds bu métier métier Macky Sall daanaka nag il est prévenu parti réew mi Euh, officiellement déclaré wul candidature leader am mais benn campagne de collecte de fonds la ñu entamé au niveau national et international pour soutenir candidature bu Idrissa Seck ca prochaine élection présidentielle yile boobu les collecte de fonds ñu intitulé ko soutenir Idy pour la victoire en 2024 président bu conseil économique social et environnemental ne nekk troisième ci présidentielle yi 2019 renoncé wul benn yoon ci ay ambition présidentielle am cependant Macky Sall mi nga xam ne alliéem la maintenir itam ba tey mi ngay maintenir flou bi eh, ci intention yi nga xam ne moom la am ci briguer li nga xamante mooy suffrage sénégalais pour la troisième fois en violation de la constitution ah, bu ñu sukkandikoo ci adversaire am moom il est toujours dans son ni oui ni non en tout état de cause Idrissa Seck eh, dina war a am bénédiction bu nag am plus de chance en 2024 parce que nag cote de popularité dafa nekk en chute libre depuis des années jàpp leen ni instant bi moom Idy daal Euh, moom waxut ba tey ay nag responsable am itam waxuñu waaye nag na muy doxale mooy yenn ci ay militant wam ñu ngi daal di nag lancé ab collecte de fonds boo xamante ni la ñu ci jublu mooy sa Seck am xaalis ak i koppar gu doy boo xam dina tax mu mën a daal di battre campagne euh, ngir ñu soutenir ko diaspora bi door nañu yëngal lekket geeg nafa yi daal di koy ketal nag ngir mu daal di am ab fonds gu muy demee campagne ci présidentielle yi boobule campagne pour boppam dafa war a daal di présenter au candidat candidat ci 2024 wala c'est pour juste pour jàppale Macky Sall mi nga xamante ni nag ba tey kenn xamagul ndax mooy samp ndëndëm wala bokk dafa am ñoo xamante ni ñoom la euh, dafa am ko mu nar a daal di euh, ngemb ndax ba tey jii nag ay weer képp moo des ci élection présidentielle vingt 2024 euh, te moom Macky Sall mën a guta daal di wax lu leer nañ ci mbir yi ak nag li nga xam ne mooy nii wii nii noo gi mu nekk mbir yi fulu lool nag ci ci ci bopp askan wi kenn xamagul sax fooy teg sa tànk koo ci laajoon tey dax ndax dana présenté munu laa wax lu leen ndax Macky Sall ci bopp moom maintenir suspense bi jàppale ni jamono ji nga xamante ni moom la ñuy àddoo président de la république Macky Sall Idrissa Seck alliéem la mu woolu ko dénk ko conseil économique social et environnemental waaye nag euh, kenn xamul ba xam lan moo nekk ci boppam wala bu dul moom itam ay militant am lan la ñu daal di nag bëgg ci 2024 élection yi nga xamante ni ci la ñu daal di nag jëm. ëpp ak dama koy dagg foofu ak DKR 221 ku bëgg am lu leer ak yu bees tàkk aboneel ci DKR.